jërë ngeen jëf euh, mbokki internet yi dal leen ak euh, jàmm ba tey say xibaar si seen seen bi di live Dakar 221 bi dee gën nga si pass bi nga abonné partage si like vidéo bu baax a baax la sa gën a siiw ñu koy waxtaare mootu naka tukki ak ñemeeku xamante ne si ne di président di Bassirou Diomaye Diakhar fay naka si tey ji dina ko amal ak foofe sa Guinée Bissau moom kookee di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye war fa am ak ay waxtaan ak njiitum réew ndax relation ba nga xamante ne si ne Guinée Bissau dana ko amal ak Sénégal mu doon relation bu yàgg lool te dëgër lool ndaxte nag Guinée Bissau Bissau ak Dakar tey la gën a yaatu tey la gën a neex kon nag yaakaar naa Ah, tukkuk nemmeeku conférence de président ba di fa amal amako ak waxtaan gën a rek li nga xamante ne si na moo di sécurité bi jëm si wàllum frontière yi kooke di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak président bu Guinée Bissau du Omar Momé kon nag ñu war a waxtaane lu mel noone mu doon lu am solo lool kon nag tey jii danañ ko xaar foofe sa Guinée Bissau di njiitum réew mi di président Bassirou Diomaye Diakhar fay leneen la nga gën a xamante ne si tamit askan wi tamit ña ngi koy ruumandaat di ko waxtaane di ko àddu mën nañ na démb ba tey mu di kookee di njiitum réew mi ñu ne rek kookee di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye danoo war a topp ki xam ne moo di Macky Sall su autorisation comme ni mu yore woon euh, nguur gi ba muy jeexal ak na mu jeexalee ak la nga xamante ne si ne rek doon na ko doon yore mu doon yore wu ñaaw ba tax rek ñu ne autorisation rek lanu wala toppi ko nga xam ne moo di njiitum réew mi fi nekkoon di Macky Sall waaye nag kooku nga xam ne moo di président Bassirou joma Diakhar Faye yooyu la mbir daal ba fi ñu toll nii moom àddu wu sa benn yoon. waxu sa timit lu sa jëm waxul timit lu nuroo ko loolee kookee di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye si li nga xam ne moom la ni euh, jiñ kookee di euh, Macky Sall du haute trahison mu doon mbir mu xamante ne si nag am na ñenn ci Sénégal yi ñoo xam ne dañoo jàpp naa kookee di Macky Sall waroon nga koo bàyyee noonu mu dem parce que war a teg yi daan comme na mu yore wala nga xamante ne si ne moo di réewum Sénégal te ñoom jeexantal ga daal rafetul dara te rafetlu wuñ ko dara ba tax na rek ñu ne trahison waaye kooku di njiitum réew président Bassirou Diomaye Diakhar Faye àddu si euh, benn